Oustaz Modou Fall danga ni Macky Sall moo leen joxañ Amadou Ba te ba léegi joxañaatagu leen keneen kon yéen Amadou Ba rek am nga carte APR wala amoo ko nag léeru ma waaye dangaa wax ba tënk sa bopp kon APR nga daal am nga ci droit du ma la ko bañal parce que man Pastef la léegi nag di la bañal fi nga nekk moom du ma ko defal ko yàlla bind waaye dama lay fàttali rek gis nga ñun waa Pastef oustaz buy dàgga sante WhatsApp ba TikTok aller retour ñun soxlawuñ ko yow képp kuy dagga sante whatsapp yow yow la war di fay droit d'auteur ndax yaa ko fa xewal man de ku ma ko tumbux ma timbax la ko ku ma ko bultuf ma hyper la ko ku ma ko whatsapp ma sinab la ko ku ma ko kotol ma badaar la ko quoi ñun kooku lan lañ koy doyee oustaz buy dagga sante whatsapp ba tiktok aller retour ñun ko doyewuñ ko dara wan bi saka oustaz